ñu dem xool ki nga xamante ni mooy Fara Girl moom nag eh, mi ngi way li nga xamante ni yëngal eh, ñu dem xooli vidéo bi dellu si waat yëngal. yëngal. Nder. Jazz number two. allô. oui ça va. Fara. mais ci town bi ñu yëngal de gars yi foofu de. ah bon ba sa biir town dañuy yëngal di pëndal ba sa biir town sama tur wooye ma fara gël moo xamul sama tur booy wooye ma fara di pëndal ba biir town dañuy yëngal di pëndal ba biir town moo sama

a tur bi bokkut ak liiri joor man ba may xësa di joow fekk na yaa ngi door man maa ko sombi maa ko nant lépp dina ñoor bay naa lu bëre ndax raab jot na mu fay ma boor kafe du dute lu ne ci man nekk ci ñoom moo tudd bippe te ñoom rek sa carrière bi jeex xam naa ni bandi nga mais man nga daj sa cooki fin changer sa xel ak sa jikko moo gën nga changer tey raatak ma fa la def lu metti ne ma demande mois de kañ lay jeex man ko jeex jeexagul jigéen ñi ay ba alors dañuy recevoir keneen sur ce plateau Fara moom nag Farmata laa ko xamee woon bi muy nekk seen petit gàll di représenter Saint-Louis. Euh, voilà ci parce que am na benn moment ngoone dañu intégré woon hip hop bi ci seen petit gale ñu doon compétir di wane seen ay talan tey mu yegg si fi donc ñu ngi koy féliciter di ko encourager n'est-ce pas Samira. absolument ñu lay nuyu di la euh, Sénégal. di nuyu tamit waa Richard képp kuy waalo waalo man Fara maa ngi lay nuyu di la jaajëfal. dëgg la voilà dafa am style. parce que gëm na boppam xale bu gëm boppam la parce que boo déggee ci son bi nee na moom fi mu ne nii dafa ñëw pour yëngal bu ko kenn téye. ci géew te nee boo ma xamul bul na naka nañ may wooyee wooyee ma faaw. boo xamul sama tur woowee ma faragël yeah <laughs> alors Fada yow lan nga lan nga waajal lan ngay préparé ci li nga xamante ne moom moo di jéem bi surtout nga nekk jigéen mhm. nekk xale ñu dégg mu nekk lenn loo xamante ne day laaj liggéey bu tar mhm. yow ci lan nga toll exactement bon Fara yàgg na depuis commencé na milieu musique bi bu yàgg. et ma yàgg tamit di fréquenter di bëgg di delloo njukkal ay jigéen quoi. Mm-hmm. moo tax maa ngi nekk ci benn projet boo xamante ni Talaatay la tudd. oui Talaatay Ndeer bi dama ciy jaajëfal képp kuy jigéenu waalo waalo. ak képp kuy jigéen man Fara waalo laa dëkk képp ñëpp xam nañ daal Richard Toll. waaw. léegi avant tout d'abord damay njukkal jigéenu waalo yi ñoom ma jaajëfal leen di pare benn EP boo xamante ni talaatay ndeel la tudd ma leen koy sargale mhm. Fara euh, nekk doomu euh, Richard Toll Ndar Saint-Louis euh, nekkoon fi nga xamante ni mooy seen petit gallé mais lan mooy lan moo la motiver ba nga dugg ci hip hop bii nii bu tar bi. <laughs> bon hip hop dama ko yàgg fooyee depuis petite ba léegi maa ngi nekk di foo ci hip hop. hip hop rek laa doon fooyee di seetaan tamit ñoom mami ñoom mami Victory OMG. waaw ñoom ñoo ma gën a poussé ma. OMG la doon reprendre sax mais gravement ah. <laughs> dinañu may benn. <laughs> voilà donc loolu moo tax euh, nga nga nga nekk ci la est-ce que finalement tu as eu un label naka ngay liggéey ndax yaa ngi Dakar léegi wala yaa ngi toujours Richard Toll. oui man moom maa Dakar Richard Toll dama koy jaabante quoi. Mm. et maa ngi ci benn label bu ñuy wax Black Record. di nuyuwaale tamit Paco di ko jaajëfal moom tamit buñ demee ba di wax Fara di seetaan samay clip lépp moom moo ci jàpp moo nekk ci projet bi moo nekk lépp Paco Black Record maa ngi koy jëfal moom ak soxnoom Jéeni maa ngi leen di nuyu di leen def kuku. bi ma sa ñaateel euh, projet boo boo génnee. bon dama nekk di ko pare ay série de freestyle. wax am na benn bu njëkk génn bii nii. boobu mooy YouTube bii moo mujjee génn ñu lancé ko. ci EP buy waaj a génn bi ko wax. EP bi kañ lay génn bientôt. EP bi bientôt di wax gars yi nañ ko xaar. léegi léegi incha allah. <laughs> rab bu dëgër bi walla bu nooy. j'adore ça ah e bi daal am na lépp lu doy waar lépp mooy si biir. <laughs> lépp a ngi ci wax nga wane tuuti sa bopp ne lan nga. may ñu benn affaire vite fait balaa ñuy jeexal. daf ñu xam ne ñun waalo waalo yi dañu gëm suñu bopp. <laughs> waaw gis nga allez tekk mu gaaw sa rappeur bi xewi na daaw xeeb sa leveni buuka bu taaw man kase ba mu mel ne érosiment ba nga rak jege ciment nga dégg fi ñaan sinon de bouger comme oto bu paan yee booy sori ma maa sa suufu bët te à part sama bopp kenn mënuma të ey sa rab du jaar fàttali la ko comme ginaar gi noddu fa jaar xoolee la jeeg bu jaar ey takki sa bin bin te ne ma kiwin del bin bin ak say goro njikee rab bi de maa ko jiite nice, <laughs> merci nice, beaucoup kontaan nañ ci yow bu baax a baax lan mooy sa mot de la fin Fara. et les a du talent. bon di wax Fara moo ngi nii Fara Richard Toll Sénégal man moom damay jaajëfal waa Richard Toll. Mhm. ba may ñëw lañ ma topp ni ma i 5 lañuy la taal télé bi man leen waa taal leen ko bon di leen jaajëfal ñoom ñëpp samay yaay samay pap samay rakk samay tante ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar samay xarit ak képp kuy bëggee Fara Gueule maa ngi lay jaajëfal bu baax. bon Fara moo ngi nii tere bënt nañ ko xaar maa ngi ci projet yi. maa ngi ci lépp incha allah. nuyu nuyu ñu waa team Sen Petit ñoom dañu formé benn groupe ñu bokkoon parce que on a fait deux à trois ans oui. dañu formé benn group ñu nekkoon ci Sen Petit Gallé yëpp góor ak jigéen. waaw ku ci nekk yaa ngi def sa projet personnel. donc nuyul ma sa sa yeneen morom yi nekk ci groupe bi yëpp. d'ailleurs maa ngi nuyu Yasmina Yasmina daabo maa ngi koy ziar bu baax. comme <laughs> sama lépp la. merci beaucoup ça fait ak ay cavaliers maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp képp ku nekkoon Petit Gallé nga nekkoon fa ak Faraguel. Mhm. maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp. c'est mhm. une fierté de voir les enfants de Sen Petit parce que démb j'ai eu l'occasion de découvrir une très belle chanson de Astar et de euh, Aïcha Koné euh, duo bi euh, c'est tellement magnifique loolu moom duma leen ci wax dara ah dama leen di bàyyi ngeen dem YouTube ngeen déglu ko après ñu waxtaanaat ci jeex na alors dañuy dem rapidement